siyaara yow ngeen di siyaara yow ngeen di siyaara siyaara du man maa ko moom siyaara bii bàyyi ne duhut ne moo ko moom man xam naa ci yàlla moom xam na kenn ne yéen ci yàlla rek ngeen jëm du waaye yàlla ngeen di wut ci man mu ne moom du yàlla na ne waaye yàlla ngeen di wut ci moom te li koy tegtal lii tegtal na ci loolu siyaara ngeen si daaw fekkee wu ko siyaara ngeen si daaw yéeg fekkee siyaara ngeen si daaw fekkee wu ngeen siyaara si daaw jéeg tëttewu ko daawaati jéeg dikk ngeen siyaara si tëttewu ko bu fekkoon ci man ngeen jëm bu ngeen ma fekkul ngeen di wàññeeku kon mu ne xamee na ci ne su fekkoon ne moom moo leen di tax a jóg ci moom ngeen di jëm su ngeen ko li fekkul wàññeeku waaye ka ngeen fi doon fekkte bi ma fi nekkut waaye ka ngeen fi doon fekkte moo leen tax a jóg bu di bàyyi nekkut yàlla na fi nekk bi ngeen ma fi fekkee itam kookale nag yàlla na fi nekk di fi bàyyi ñii nekkee itam wala sax yàlla na fi gën a nekk wala sax yàlla na fi gën a nekk yàlla gën la nekk ci barab ci barab yàlla gën la nekk ci barab ci barab waaye ay tëjaliyam dana gën a feeñ ci ci ay feeñuwaay ci ay feeñuwaay waaye ay tëjaliyam dinay gën a feeñ ci ay feeñuwaay benn murid benn murid mos naa àgg ci yàlla beru sëriñam mos naa àgg ci yàlla beru sëriñam ñu laaj ko lu tax dematoo ci sëriñ bi mu ne moo gisee yàlla lu may wuti ci sëriñ bi ñu laaj ko waaw yow lu tax dematoo ci sa sëriñ bii mu ne bu ma xasee gis yàlla lu may wutee ci sëriñ ba sëriñ ba ne mu gis ma benn yoon moo gën mu gis yàlla junne yoon sëriñ ba ne dafa xamut de waaye mu gis ma benn yoon moo gën mu gis yàlla junniy yoon yàlla moom ngay gis ci lu nekk yàlla moom ngay gis ci lu nekk mën na laa feeñ ci mango ga nekk mën na laa feeñ ci mango bii. mën na laa feeñ ca manaara bale. mën na laa feeñ ca sooroor bale. mën na laa feeñ ca nag wale. mën na laa feeñ ca nag wale itam. mën na laa feeñ ca gàtt bale. mën na laa feeñ ci gàtt bi nga jàkkaarloo. mën na laa feeñ ci man mi wax ak yow. mën na laa feeñ ci man mi wax ak yow. feeñ waay yooyu niroo. xam ngeen ne feeñ waay yooyu. ci doo ko duñ dem. kon. kon. da ngeen fi ñëwee ziara si. ba ngeen dikkee ziara si. fekk leen ma fi fekk ngeen fi yàlla. cëppale ji bàyyi waaye fekk ngeen ci yàmba tey bi ngeen ñëwee fekk ma fi itam ba tey nekkuma fi yàllaa fi nekk tey bi ngeen ñëwee fekk si bàyyi bàyyi ne nekku fi yàllaa fi nekk waaye yàlla na yàlla nangu siyaara bi kon nag yàlla na yàlla nangu siyaara bi yaara bi ñoom nangoo yu njëkk ya ñoom nangoo siyaara yu njëkk ya njëkk ya moom amul sikki sakka ne luñ nangu la yu la amul ngistal amul leneen ndax amul benn ngistal amul leneen yàlla rek ngeen defal yàlla rek ngeen defaloon ànd ak jëfi sëriñ moom amul ngistal ngistal ànd ak jëfi sëriñ moom benn ngistal nit du jëf téere yi dañ ne jëfi sëriñ ngistal du ko yàq téere yi dañoo wax ne jëfi sëriñ ngistal du ko yàq ngistalal sa sëriñ du yàq jëf ngistalal sa sëriñ itam duxut ne dafa ne dana yàq jëf man ma ne bàyyi nag moom mu wax ne foofu ngistal mënu faa am foofu daal ngistal mënul fee am moom ngistal mooy lan ngistal moo di lan di def ngir yàlla di def ngir yàlla di ko wan keneen ku dul yàlla di ko wan keneen ku duhut yàlla waaye ki ngay jëfal nga wan ko ko kooku waaye ki ngay jëfal kay nga wan ko li nga ko jëfal loolu benn ngistal ngistal mënu jaam moo tax jëf nga jëfi sëriñ ngistal mënu ko yàq wala man dama ne ngistal amul bàyyi jëfal sëriñ dañoo wax ne jëfal sëriñ ngistal mënu ko yàq ngistal munu koo yàq moom dama wax ne ngistal munu caa am waaye bàyyi nag moom dafa wax ne jëfal sëriñ ngistal munu caa am maa ngi jëf ngir yow maa ngi koy wan maa ngi jëf ngir yow maa ngi lay wan loolu ngistal munu caa am bàyyi ne loolu benn ngistal munu ci am ànd ak nag ànd ak nag li nga def ngir sëriñ bi li nga def ngir sëriñ bi yaa ngi ko def ngir yàlla yaa ngi ko def ngir yàlla ba mu teewee ba mu fàddoo bu ñu amee ci yow ba mu teewee ak bu faddoo buñ xamee ci yow. loolu tegtale na dëggu tegtale na lixlaas. loolu tegtale na dëggu tegtale na lixlaas. benn wàll yi dafa mas a dogu ci haji makka. benn wàll yi dafa mas a dogu ci haji makka. waaj. waaj ba pare. yàlla dogalu ko. yàlla dogalu ko. mu dellu dogu beneen yoon. mu dellu dogu ci beneen yoon. waaye yàlla dogalu ko. waaj yàlla dogalu ko. mu dellu dogu ci beneen yoon. mu dellu dogu ci beneen yoon. waaj yàlla dogalu ko. dellu waajati yàlla dogalu ko. mu dogu ci beneen yoon. mu dogu ci beneen yoon. waaj. dellu waajati. yàlla may ko mu dem. yàlla may ko mu dem. ba mu demee ba taxaw arafaat. ba mu demee ba taxaw arafaat. daf na yàlla. dafa wax ne yow yàlla. ni nga nangoo sama yetti xaj yu jëkk yi. ni nga nangoo sama yetti xaj yu njëkk yi. yàlla waa ji bi de. yàlla na ko nangoo sunu xajar yi ñeenteel bii ma teew. mooy lim doon xëy na te te amul ci lu feeñ. mooy lim doon xëy na te amul ci lu feeñ. xëy na jullit. te xëy naay jullit. moor jëfamayam wala moo gën a jot jëfam. moor jëfamayam wala moo gën a jot jëfam. moo tax mu xam ne yetti xaj yu njëkk yi ñoom. looloo tax mu xam ne yetti xaj yu njëkk yi moom. yàlla nangu na ko. yàlla nangu na ko. amul benn ngistal amul benn ràgg. amul benn ngistal benn ràgg nekku ci. mu ñaan nag bii itam. mu ñaan bii itam. mel ni yu jëkkee. yal mel ni yu jëkkee. siyaara bi yal na mel ni yu jëkkee.